ñëwoon tey dajale sunu dém ak sunu daqaar ci dëkk bi nga xam ni fii la juddoo lépp lu ñu mën ci àddina fii moo ñu ko defal muy commune Dendey Guy gi ñu jëloon tey lu toll ci euh, presque junni coupon saabu ak euh, euh, lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukki butéeli eau de ak téeméer ak juróom-ñaar fukk yu topp ci butéeli li nga xam ni mooy madaar indi woon ko doon ko jébbal préfet Euh, mu yëkkati ko teg ko ci loxo askanu commune Dendeye guy gi ndax euh, ñu mën a def santaane yi nga xam ni moom la président santaane moom la ministre de de la santé santaane moom la gouverneur de la région santaane moom la préfet santaane moom la sous-préfet Kayel bi nga xam ne nun mooy sunu kilifa tey ci sunu commune euh, santaane mooy rek nuy ñaan képp koo xam ni kii yaa ngi ci biir addina bi rawatina ñi dëkkee commune Dendeye guy gi nañuy raxasu ak saabu te bàyyi xew yi bàyyi daje yi di raxasu ak ordre sawel te xale yi bu ko defee yàlla sunu borom danañu mën a musal euh, monsieur le maire nu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla di sant Alaaji Fàllu Taal euh, monsieur le préfet ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal mission bi nga xam ni moom lañ la indee ci sunu commune bi yàlla na yàlla sunu borom sàmmale la ko nanga nga seere ne sunu xol sedd na am nañ mbégte mu rëy ndax euh, tey fii laa juddoo 69 laa fi génn siwaat yaay su préfet bi ma jëkk a toogal tey yëkkati ay teraanga di la ko jox ci dëkk bi tey sama xol dafa sedd ndax maa ngi mel ni damaa jàkkaarloo ak per de la nation kon ñu ngi lay sant di la gërëm ndax tey dimanche la waaye yow service bi nga xam ni moom lañ la dénk xam nga ko ndax dimanche mën nga tëdd noppalu waaye biñ la ko waxee ne la kat am na euh, lu ñu war a indi déende commune déende guy gi da nga bàyyi li ngay def te wóor na ma ni. jëkke woo déndey te mujje woo fi kon ñu ngi seeral say kilifa le ministre de l'intérieur ministre tutelle ak gouverneur de la région préfet ne yaa ngi def liggéey bu rafet ci dëkk bii nga xam ni dëkkub Serigne du Xabaan Mbàkke la di dëkku Serigne Mandoumbe dëkku Serigne Serigne Ibra Xuja eh, di dëkkub sëriñ Aliou Mbàkke ndax sëñ Modou Moustapha doom yox ci Aliou Mbàkke moo nekkan fii ci Daaru nayim ak Tayba Cekkeen di ay dëkki sëriñ kon taxawaay bii nga taxaw ci service bi noo ngi ñaan yàlla na yàlla suñu borom feyal nu la suñu ndax tey dimanche la ñu ngi santit sunu ki nga xam ne moo nekk sunu poste de santé bii muy monsieur Sow ndax sunu baay mi ngi ci kër gi mi ngi nii léegi la ma woo téléphone ni ma santal ma Sow kon nag boo nekkee ci dëkk boo xam ni dafa am ay mag te mag wéram du demee noona nga taxawu mag ñi ñoom itam ba seen xol sedd caw bañ di la gërëmlu ñu ngi lay sant di la gërëm en tout cas ñu ngi sant commune bi yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi waaye daal préfet nanga seeree na sunu xol sedd na ci honneur bi nga nu defal tey may nu ko nu woola nga bàyyi te yëpp dawal oto ànd ak commandant de la gendarmerie bi nga xam ne moo nekk Kayel moom itam ñoo ngi koy sant di ko félicité di ko ñaanal yàlla na yàlla sunu borom yokk ay galon euh, président Macky Sall recevoir nanu alxemes mu nekk honneur bu rëy ci nun euh, li nu doon doyee rek mooy li mu nu mas a doyee ndax nee na moom xam na ne nun nooy nekk ci ngénte yi nooy nekk ci céet yi ñooy nekk ci dëj yi nag bu bu dara xemee mu wax nu ne fépp foo xam ne fii taxaw nañu fa nañ waxtaan ak askan wi ci xew nañu ko arrêté ba lii yàlla sunu borom jeexal ko arrêté daje yi di raxasoo ak saabu di raxasoo ak ordre sawel bàyyi joxe loxo bàyyi akolaat loolu daal mooy li nga xam ni lii moom la ne fépp foo xam ne fii dem nañ fa nanu ko wax kon maa ngi lancé appel communicateur traditionnel yi nga xam ni ñoo nekk ci région de Diourbel rawatina département Mbacké ku mel ni sama rak Samba Awa Ndiaye bu Diourbel nga xam ni mooy suma secrétaire maa ngi wax ni képp kuy communicateur traditionnel na nga sol sa dàll ndax réew mi defal na la ko boroom réew mi defal na la ko waxu ko am sareet na nga ko takk dem wax askan wala déggul ko am fas na ko war ko am mbaam na nga ko war képp koo xam ni kii dem nga ci xew la ngay jëkk a wax mooy ndigal li nga xam ni moom la président santaane ministre da la santé santaane ko mooy nañu raxasook saabu ak ordre sawel ba mu set nañu bàyyi nuyoo bi nañuy teel a tëdd te respecté suñu homme de yi ndax xoolal sous-préfet ni mu sonne xoolal commandant de la gendarmerie bi nga xam ne moo nekk ci poste Kayel ni mu sonne xoolal yéen journaliste yi deux heures ngi nii taxaw ngi taxaw yow yaa ngi ni taxaw yow sam si diin kenn ci yéen añut kon loolu lu ñuy rafetlu la waaye maa ngi ñaan képp kuy communicateur traditionnel communicateur traditionnel du géwél képp kuy ñeeñu communicateur traditionnel nga kon nun ñëpp nañu àndandoo waxtaan ak askan wi ci raxasu setal loxo yi bàyyi xew yi li nga xam ni lii mooy santaane yi ñuy teel a tëdd loolu daal bu ñu ko defee yàlla suñu borom dana mën a dimbali dimbali Samsudeen. suñu euh, frère suñu mag euh, Khadim Samb euh, ñëpp xam ne communicateur traditionnel la nekk ko liggéey ci RTS mu ñëw indi li nga xam ne mooy participation pour xeex li nga xam ne mooy li nga xam ne moo lëmbe àdduna bi jamono ji te ñu koy wax le coronavirus. mu nekk benn feebar boo xam ne tey puissance yi nga xam ne tey ñoo ëpp doole ci àdduna ñëpp daanaka am na fu mu leen yegg. nga xam ne ñi nga xam ne ñi ngi suivre actualité ñi ngi gis ne askan wu lëmm wala ñu baree bari ñi ngi faatu te virus boobu ni muy jugee ci nit di dem ci nit dafa doon loo xam ne lu gaaw la euh, au Sénégal effectivement am nañ ay cas yoo xam ne enregistré nañ ko mais ñi ngi sant yàlla li tax ñu sant yàlla mooy taxawaay bi nga xam ne moo war le président de la république teel naa jóg am benn taxawaay boo xam ne taxaw na ko le ministre de la santé ñëw taxaw ak tout la gouvernement pour que ñu mën a xeex jàngoro ji ba génn ko suñum réew ba Sénégal doon ci modèle boo xam ne modèlu xeex boo xam ne bu tar la bu bu bu am solo la boo xam ne taxaw nañ ko loolu nag pour mu mën a nekk mooy que ne ñun population yépp dañu war a am benn respect ci mesures yi nga xam ne le président de la République jël na ko ak les recommandation yi nga xam ne le ministre de la santé et de l'action sociale à travers ses services def nañ ay communiqué def nañ ay ay ay ay ay ay ay lu ne message yoo xam ne envoyé nañ ko askan wi pour ñu mën a am doxalin boo xam ne moom la ñu taxawee bàyyi accolade yi nga xam ne moom la ñu def ak yeneen yi nga xam ne yëpp virus bi mën na cee jaaree jóge ci nit tàbbi ci nit su ko defee loolu lépp ñu maytu ko yi nga xam ne également c'est des mesures de sécurité yi nga xam ne jël nañ ko nga xam ne couvre-feu am na de vingt heures à six heures du matin kenn ku ne it nga xam ne heure bii laay génn heure bii lañ ma may fii laa war a dem su heure bi jotee it sama kër laa war toog donc loolu am na taxawaay bu mat boo xam ne taxaw nañ ko ci donc lii nga xam ne ay produits la yoo xam ne ñëw na dina dinañu réfléchir dans le cadre un peu du comité locale bi nga xam ne mettre nañ ko en place avec le les les ICP ak les maires ak ñeneen ak ñeneen ñi ci des bu ko defee ñu mën a xool nan lañ koy utiliser waaye bu ñu koy utiliser aussi ñi ñu koy jox am na message bu mu war a àndal parce que duñ la jox saabu bi wala ñu jox la madaar bi wala dara xëy na nga dem sumbee ko am fóot wala nga defee ko lenn li nga xam ne day jeex ca bis ba mu jeex dafa am lu tax mu jóg li tax mu jóg mooy dañuy xeex coronavirus pour loolu mën a am nag dinañu fexe ba ñi nga xam ne mooy rele communautaire yi parce que comme rassemblement dañ koy bañ bu ñu koy joxe ménage bi nga xam ne moom lañ koy jox bu ñu la koy jox ñu amaale luñ la ko luñ la ko booleel mooy lan xale yi génne bu ñu ñëwee bala ñoo dugg nañu raxasu bu mag ñi génnee bala ñoo dugg nañu raxasu mu doon réflexe loo xam ne da ngay dem ba kenn dootu la ko wax soo génnee rek def tour bu ndaw rek soo ñëwee li war a doon sa sa sa réflexe sa xalaat bu njëkk mooy naa raxasu ak ndox ak saabu ba set wecc gel yi nga xam ne tamit am nañ ko muy gel antiseptique yi ak yooyu nga xam ne aussi su ma jotiwul fu ma raxasoo ndox ak saabu naa jël gel antiseptique bi ma utiliser ko en attendant ba ma jot ci ndox beeg saabu bi ma raxas samay loxo bam set bu ñu raxasu ba set respecté mesures yi nga xam ne kilifa yi nga xam ne muy président de la république ak le ministre de la santé jël nañ ko ñun askan wi yëpp ñu respecté ko man gëm naa ne njort naa ne suñu borom dinañu dimbali.